daan ne alqur'aanu shaafiun mushaffaa wa maaxilun musaddaq man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna wa man jacalahu xalfa dahrihi saaqahu ila annaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na téere yàlla bi alquraan bu yowmal qiyaamee bu yépp taxawee ci pénc ma moom day ñëw daal dugg ci biir nit ñi ba ci ñëw ba ci benn waay ni ko coppet génn ko daan ni yàlla kii ba mu nekkee àdduna daf ma daan jàng dama bëgg nga may ma ma dugal ko àjjana yàlla ni ko bismillah allahu akbar mu daal di koy dugal àjjana te balaa demit yàlla nee na wa maa xelul musaddaq wala boog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam afwan yonent bi nee na wa maa xelul musaddaq nee na nee na dana seede ci moom yu baax ka doon jàng alxuraan alxuraan day taxaw di seede ci moom wax yu baax bu waxe ba pare yalla niko wax nga deug <laughs> allahu akbar kon mbokk yi alxuraan a ngi nii mooy la ci waxon rek yalla bi ku ko jël def xarit ëllëg di nga raw di nga am payor di nga am ay ngëneel yu dak ba faw waye nak ku seeti la neen torox taken du la naw alquranul karim mbokk yi ñu ngi won ci aya yu neex aya yu am solo waye yu tayé dakati يالله سبحانه وتعالى نينا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يالله سبحانه وتعالى نينا مالين تقتل جيك Moli, deglu len leen bax bu baax lébu yi ndeysaan la ko ca comme niko waji waxé euh tubab jalaw ba wakam ngor wakam yof tubab jalaw ak mbuur ak fep rek ndaysan genda rek fep ndar yek ñet nañ deglu wa kuy lebu rek na deglu moli ñi dul ay lebu nañ deglu waaw yalla neena may geej ba pare defal len ci ay jeun ba pare yàlla fii nii ci saar wi jën yàpp la ko tuddee laxman tariya yàpp wu nooy allahu akbar balaa nga koy xam ñu taajal la ceebu jën def ca jën wu mag jën wu weex nga xamante ni nii mën nga cee jam kudd gi te du egg ci yax wa nga xëcc allahu akbar yàlla nee na man la ba pare dañu laxman tariya yàpp wu bees ba pare nooy neex foofu yàlla bu ñuy jàngal ni jën bu génnee rek jën wu bees moo dàq jën wu yàgg tamit gis naa ci mbind ay médecin wax ni aw jën lu mu gën a dund ci biti rek lekk ko di gën a wóoradi bi maanaa jën wu bees garab la jën wu bees dafa baax ci yaram wuute na ak jën wante te ni ba mu génnee kenn xamul ñu jàpp ko galaase ko galaase ko ba kenn xamatul fu mu féete yemuñu te wallahi alazim yemuñu waaw te ji am na njóobeen yoo xamante ne nii boo leen taajaloon fii ñaari booli ceeb bii jën yu bees a ci nekk bii jën woo xamante ni daf na une semaine ci frigo bi bu ñu ñamee rek dinañ xam jën yi moom léegi la jóge géej wallahi ndeysaan waaw gars yi dañ koy xam de ak ñu koy xam <laughs> xam naa ci dara macha allah yàlla subhanahu wa taala nee nag ah maa may géej may leen ci ay jën waaw ay yabo wala sax tàllaar yu fuuf ah yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen ay jaaxal nuus yàlla nee na moom la allahu akbar waaw tas wa tastaxriju minhu xilyatan talbasuunaha yàlla nee na it ba tey maa leen may géej am yu ma leen ca defal yoo xamante ni duñ ko lekk de mais ay takkaay la ay peri wurus peru jamaa biir géej la ëpp yàlla nee na maa tàggat nuurkat bi mu nuur daa di koy génne yàlla nee na ci may gi mu ñu may géej am na ci ñetti façon am na ñuy yéeg gaal mbaal yi am na ñoo xamante ni du ñu yéeg gaal mais dañuy dem nuur napp génn am na ñoo xamante ne nii du ñu nuur ñu gaal ci tefes gi lañuy toog sànni di xëcc ba mu ñëw yàlla ne ne yooyu yépp man la waaye maa leen may takkaay yoo xamante ne nii xilitan na da ngeen koy sol su ko defee yow mi may déglu nga posé question daan mais ay takkaay ay wurus ak yooyu noonu jigéen ñi ñoo koy takk te yàlla leen talbasuuna xaar da ngeen ko sol yéen góor ñi déedéet jigéen ñee koy sol mais góor ñi ñoo ciy bëgg ñoo ciy kontaan foofu dafa am sew-sew bu ci nekk yàlla subhaanahu wa taala li ñu xam mooy jigéen mooy solu en général jigéen buy solu di sañse di wut ay takkaay di ko takk lu ci bari bu génnee cadre puukare ak wan ko ay moroomam lu ci ëpp daf koy def ngir bégal boroom këram moo tax célibataire yi moom aay bi bokkuñu ci waaw ku ci gis ku takku ba nga cay kontaan da koo sàcc waaw waaye célibataire moom bokku ci bii pour marié yi la. yalla ya subhanahu wa taala nena na maa may ay takay marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan ya fa bi ayyi alaai rabbikuma tukadhiban yakhruju minhumā al lu'lu'u wal marjan. yalla nena na maa may bir geej di fa gennel ay peri wurus ay jama, jigen ni buñ ko jëlee defar ko ñukoy koy defar defar ko ba mu rafet ndaysan bu ko soxla ci takay nga xol ko daal di bëgg yalla nena na la ñaari xéewal ngok wa taral fulka mawaaxira fii yàlla nee na maa leen may ay bato yu ngand wala ay gaal yu rëy bu ñuy daw ci ndox mi nga yaakaar ni dañ koy xotti ñuy xotti géej gi mawaaxira mooy euh, ya suqu muy da koy xotti dañ mel day xotti ndox mi yàlla nee na moom la yàlla nee na maa téye bato bi yàlla nee na man maa téye li nga xamante ne nii moom moo di gaal gi ba labul yàlla subhanahu wa taala nee na bu ma neexoon labal ko waaw waaw waaw wa in nasha nugriqhum fala sarixa lahum wala hum yunqadhun yàlla subhanahu wa taala nee na bu ma neexoon ngeen yëg gaal dem mbaali mbaa bato ma bàyyi ba ngeen dem biir géej ma daal koy këpp te def na ko nag am na ñu mu ko def yooyee yàlla daf koo def pour jox ñu ci ay misaal yàlla subhanahu wa taala nee na loolu lépp moom la wa taral fulka mawaxira fii yemu ca de ñeenteelu xéewal gi nga xam ne yàlla lim na ko ci aaya ji moom mooy wali tabtaxu min fadli yàlla nee na maa leen may géej may leen ay bato may leen ay gaal ngir ngeen sàkku ay xéewalam yan xéewal ndeysaan bato yi départ Europe Italie France Espagne ak fu mu mën a moo xam Asie la ak fu mu mënti doon daal di dëgmal Afrique ñu daal di conteneur bi ñëw na waa ji dem jënd fa matlaawam kële dem jëndi oto kële dem jënd ji frigo kële dem jënd ji écran plat bu conteneur yi ñëwee nga gis ku dem foofu jënd fa ay kudd kii dem jënd fa ay palaat kii dem jënd fa ay kaas yàlla subhanahu wa taala nee na wallaahi yàlla nee na ci sama mbaax laa leen la géej xelal leen ba ngeen defar ay bato xelal leen ba ngeen créer ay conteneur ngeen di demalante di dëkkalante su ko defee ngeen di jariñ fii ngay toog ab frigo ñëw nga romb benn conteneur jënd daal di yóbbu sa kër fekk ni yàlla nee na maa ngi ko jële dëkk bu sori waaye man maa la ko indi indil man yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na nag ngir yàlla kon maa leen may yii yëpp maa leen may jën boo añatee ba pare sant ma waay bu fekkee bu fekkee soxna si yekk na añ bi avant tisbaar soo paree bul ni damaa sonn waay jàppal nga dem jàkka ji julli ji sant ma waaw bu fekkee tamit añ bi daa yéex a pare demal julli ji boo ñëwee ndeysaan nga tiim ko daal di xéewlu boo paree nga sant yàlla subhaanahu wa taala nee na moom la ngi ngir yàlla boo amee écran place kër mbaa nga am frigo mbaa nga am lu mu mënti doon mu leer na la lii bitim réew la jóge tey jii boo ko bëggoon a ji foofu man naa di nga sonn waaye yàlla tàggat na benn commerçant mu dem jënd ji ko yeb ko ci conteneur si toog xaar mu si nga dem jël jënd yóbbu sa kër yàlla subhanahu wa taala nee sant ma man yàlla subhanahu wa taala moo tax gis ngeen aaya bi aaya bi yàlla li xéewal yi mu ko jeexalee lan wala allakum tashkurun yàlla nee na maa leen may yooyu yépp pour ngeen sant ma mbokk yi sant yàlla subhanahu wa taala kon kon gis nga saar wii muy sóoratu euh, an naxli saar wi yàlla tudde yamb yàlla lim na ci ay xeewal yoo xamante ne nii wallahi alazim yow mi may déglu boo toogee xalaat xam ni yàlla ku ñu bëgg soo toogee xalaat xam ni yàlla ku baax la ci ñun soo toogee xalaat nga xam ni yàlla mii ku ñu bëggal jàmm la ku bëgg xam ko la te wan nañu yoon wi ñu koy xamee te bis bu ñu ko xamee dinañ ko bëgg te buñ ko bëggee dinañ ko jaamu yal nañu yàlla subhanahu wa taala defal dégg ak topp jéggal ñu suñu bakkaar jéggal ñu suñuy rëcc rëcc lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng jën jéggal ñu ko di jaajëfal ñu ñuy àndal ci liggéey bi la maison di Coran insha allah tabaraka wa taala dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen mbir parce que aaya yi bi mu jeexee yàlla duggaat nag ñun ci yeneen aaya montagne yi